mbokk yéen a ko gisandoo kii mooy le grand laay le chef borom dëkk bi amee laay noo leen gisee organisation bu ñu defaat fii nii ci Kaolack en préparation de l' le grand événement de Wally Seck mais mais mais mais mais événement mënatuñu ko raw ba ba ba dépassé Ah. parce que bu nekk rek ak borom bis bu nekk rek na muy toll na borom toll lay toll ah. tey Wally dafa toll foo xam ne Sénégal dafa moom Sénégal ah. bu demee ba Kaolack jël Wally def ko seen artiste principal c'est parce que Wally si ko ko liggéey mais li ñuy wax defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal mhm. ñëwaat tey seen bi amoon daaw tey mu am lu ko raw mhm. événement bi xanaa day gën di yokk rek. day gën di yokk masse nga ñu ngi soxla ci porte yi gis nga ni ñu xëccoo di ñëw. waaw dafa yéeme li ñu fekk am xam nga masse juste da ngay poser question pour ses téléspectateurs parce que yow leer na lu jaar ci yow àddina gis ko vraiment àddina ñu lay suivre euh. mais xam nga ne Wally Seck dimension bi mu toll <laughs> ak dayo bi mu am euh. macha allah xam nga daana la mais laay coow li am taay noo ko dundee coow li am tay tay tay tay jii quoi mais xam nga la mu waral loolu waaw c'est juste que lu ne rek ak la ko waral mais wax du bëree bëree bëree bëri ba dépassé hmm. waxkat ndax wax lu mu bëri bëri lu coow bëri bëri bëri àddina duñ mës a fàtte ne Wally Seck dafa jël bersi Allemagne le 22 juillet déplacé ko le premier octobre incha allah coow coow coow la mi ngaa ngi dugg si maas nga nga xëccoo yi baax di ñëw dafa leer Wally Seck dafa leer jaajëf donc yéen voilà ñi ñëpp ay fan su waale lañu préparer le grand jour waaw ay si yaa ngi fi naka ah. voilà la la balance vous voyez là même ah.

waaw mais frère. yaay defar lu naaj si. waaw mais gis nga ne ñu ñoo doon góorgóorlu fii quoi. mais tur bi naka la. tur bi maa ngi tudd Waly. Waly. waaw. Euh, turu bi di. tur bi mu ngi tudd li groupe Liwadeco. Liwadeco yéen a defar euh, affaire bu naaj bi quoi. pour cérémonie ak lépp loo xam ne. waaw ñun. yaay événementiel lañ bëgg quoi. waaw ñun moom ñu ngi kawlak yéen a ngi basé Kaolack waaw ñu ngi basé Kaolack di doon ay ndaw mais. Kaolack moom lépp luy. cérémonie boo xam ne événement la moom ñu ñoo ñu wax dëgg faa la ñu ngi fa. ok mun nga bàyyi sa numéro téléphone ak adresse bi. waaw léegi sama numéro bëgg a contacter. waaw ok sama numéro téléphone su nekkee am na orange am naa tigo su nekkee tigo bi 245 15 20 la. Mhm. su nekkee tigo bi la 120 74 90 adresse Saara Ndiougaare Kaolack. ok jaajëf Waly. kontaan ci décoration bu nice bi. waaw mais yéen tamit waaye. jaajëf waaw mais yéen tamit ñu ngi leen di siyaar. jaajëf on est ensemble jaajëf mbokk yi yéen a ko gisandoo pour le grand